jërë ngeen jëf boromuk fital gu soqik fitalam di yëglu maanaam tir de sommation moom la général François Ndiaye def démb journal La Tribune moo ko bind xamal ñu ne président comité suivi fond force covid 19 di général François Ndiaye ab jano la xëy démb ak taskatu xabaar yi ngir doon bilan seenub liggéey taxawu gi ñu war taxawu réew meeg waa réew mi ci jamonoy coronavirus gi nu mu demee lan lañ ci def ak lan lañu ci deful journal bi la indiwaalee ay tonto ki leeral jëm ci la ñuy nañu voilà la ñuy def kenn fayu leen kenn dàmp leen ci la Sénégal mën nañu fodd ma nangu comité bi ñu ma dénk di doon géopolitique Le Quotidien nañu njiital comité suivi fond force covid 19 di général François Ndiaye taxaw na jon boole kook faxas mbooleem tuuma yi ñu ko gàlloon moo ki gaayam nee na fii ci réew mi dafa ay nit yoo xam ne dañoo mel na ñu gëlëm ba tax ñu dëkk ay sos wax na it ne aide alimentaire gi ñu baaxee askan wi du mën a daj fépp te it du mën a dajal ñëpp les économies faay yu Mansour Faye yi ci séddaleem dund gi général François Ndiaye génnee na leen démb général nee na bu weesoo ceeb bi seetlu nañu ne kit alimentaire yi yi bari na yu ca manqué nee it fi ñu bind ñu ñu war a mu di registre ba nañu ko xoolaat ndax dese naa wér lisi ko nañu dem na bay xamleet ne bu ñu yaakaar askan wi lu munut a nekk ne ndimbal li du ñëpp ci mën a am ci enquête dina kay ba tey kàddu général Ndiaye mu defa leeral ne li ñu leen dénk mission la boo xam ne dañu koy wéyal dem ca ba jeex mbindeef mënu leen cee fab bi l'observateur nañu général François Ndiaye wax na démb lu am solo ne nee na juróom benn fukki milliards ak juróom-ñeent yi bi jël jënd ci dund jagleel ko ñi seen bët xonq ci jamonoy mbas mi ndimbal loolee du daj ñëpp du daj fépp ndax matewu ko daanu dajul suuf ki ñëpp bàkkee bay fàllu Macky Sall di Moustapha Diop ubbil journal ñi génn di wax ak jug di ŋàññi doxalinu Macky Sall ci gestion covid 19 bi ñooñee la maire bu Louga bi xëy di defanteel nee na dogal yi président Macky Sall jël yëpp ak taxawaayam bi mu taxawee taxawoo ko askan wi ci jamonoy mbas mi lépp gonga rek lépp jaar ci yoon président wan na ñëpp ne aw askanam ak intérêt général moo ko ñor ci la yoree réew mi yamu ca ne ci xët mu njëkkulisé ko ma nga fay sàkk moom Moustapha ci ñëpp ñu ànd gunge président Macky Sall nekk ci wetam jàppale ko ngir mu am ndam ci kaw coronavirus bi mi mu ne ki rawatina fi réew mi toll moo di Macky Sall bu doon borom kër la ñu ne nit mënu ko ci njabootam li koy wane moo di bi mbas mi duggee ci réew mi ak léegi amul benn dogal ba misir bu mu fi jël te baaxul baa jaaduwul ba tax mu ne képp ku di ministre baa ngay militant APR baa bokk nga bokk ci Benno Bokk Yaakaar na ñépp booloo jàppale président de la république tubayul ko taxawu ko ci kaw ngor gore ak dëgg gu mat sëkk ci noone journal L'Observateur mi ngi ñuy xamal ne moom Macky Sall kase na code du travail bi ci réew mi ak loi bu bees bu ñu promulgué mu jëm ci wàllu emploi loi baak na mu tëdde ak at ati yi yi ñu yóbbu ba ci juróom benn fukk ak juróom journal le groupe Futurs bi mi ngi ñu koy leeralal leneen lu leer ba mel ne leeral mi ngi leere ci source wa ubbi leen yéenekaay bi ministre de la pêche ak économie maritime di Alioune moo waxoon ñaar fukki fan ak juróom ci weeru avril ne moom bi ñu ko takkalee ndombal tànk ministre de la pêche ak léegi amul benn licence de pêche bu mu signé yéenekaay bi nañu monsieur ministre Alioune Ndoye ngi foowee am 173 ak numéro 174 di conseil en communication bu ministre Alioune di leeralal waa Source ne licence de pêche yooyee ñu wax du ay licence de pêche yu yees ministre bi da koo renouveler yeesal ko rek waaye dara yeesu ci lu yees leneen ci mbiri Luc Nicolaï ma ca kaso bu kees l'observateur mi bindoon ne Luc dafa tàmbalee grève de la faim ca kaso ba te kilifa yore kaso yu mi génnoon weddi xibaar boobee yéenekaay bi xëy na ca yeneen xibaar sax ñu évacué ko woon ci hôpital sax Sakhir Ndiéguène bu Kees